ñu tëj seen assemblée ñeenti weer du yéen yéen a ma ko war a laaj man maa leen war a laaj loolu lan moo tax ngeen di dégg ne ñu ngi séddale suukaru koor ci biir assemblée nationale te askan yu amul suukaru koor ngeen ne patt yéen lan moo tax ngeen di wane feneen di nit feneen fekk ne assemblée bi nga xam ne fa askan wi di toog di wax doxul tey nag dama ne damay dox pour dem sama bërëbu liggéeykaay muy assemblée nationale. Mm-hmm. mais dox bi lan moo ko ngir am assemblée nationale bu dox. Mm-hmm. déggoo ma de. nga nekk ñeenti weer a ngi nii assemblée nationale. tey dama ne damay dox pour dem sama bërëbu liggéeykaay assemblée nationale ngir naxarlu assemblée nationale bu doxul. ngir naxarlu assemblée nationale bu doxul moo tax tey may dox pour dem assemblée ñeenti weer assemblée bu ko doxulee bu yóbboo ngeen xam ne loolu musiba la ndaxte lu muy tekki mooy. ñeenti weer waxtaane wu ñu wér gu yaramu askan wi ñeenti weer ñeenti weer waxtaane wu ñu njàngum askan wi ñeenti weer waxtaane wu ñu njàngum askan wi ñeenti weer waxtaane wu ñu ñàkkum courant askan wi. bonjour oui. ça va bien ça va et vous. comment vous allez. ça ira. Ah non, il n'y a pas de possession. Ah, vous allez sur ma page Facebook, vous verrez que j'ai dit que j'allais marcher pour aller à l'Assemblée. Ce n'est pas une possession, je suis seul. Allez-y donc. Voilà, ça c'est mon lieu de travail. Honorable.